السلام عليكم ورحمة الله بكي نيو لين نيو ديلان زيار لين بالحق نيان برم سبحانه وتعالى بالين جقل حديث تايب دفع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا صحيح البخاري ينونتي صلى الله عليه وسلم دفع وقت حديث بنا دوما لك فيك ما نجي توفير له توفير له موي تد manam tedd boo xam ni da ngay desandu sa loxo maanaam mel ni ku desandu sa loxo bi ci suuf tëdd boo xam ne day xaw a jege toog tuuti xadis bi mu ngi ci saxiixul Buxaari kon sunna la jullit bi buy lekk mu toog taamuñu muy lekk du doxit yonent bi woon na sallallahu alayhi wasallam lekk fekk yaa ngi dox wala ngay taxaw buy lekk day toog ci tegginu lekk la bokk buy naanit mu toog ci teggin yi la bokk dama ne nag jamono ji nekk mën na koy sàmmonteeg xaq yi fekk xelam léeg-léeg mu génn ci waaye bu ci xelam demee rek na daal di dem toog sàmmonteeg teggin yooyu ndax yiw a ngi ci yiw wi mooy lan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko daan defee buñ ko defee roy ko ci moom jëlee ci tiyaaba inchaa allah aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh